السلام عليكم السلام عليكم اوكي نيغي نوي مبولوم ييب دي جيتل سي سونو نيو غناو بو نيو سانتي يالا جولي سي يونتي عليه الصلاه والسلام شيخ محمد المنتقى أيده الله ونصره ñu ngi koy ñaanal yàlla yal na yàlla guddal fanam dolli ko wér te bàyyi ko ci njabootu Serigne Touba gi mu yàgg leen a jiite yàgg jiite diine ji li mun naa liggéeyal ko Serigne Touba yëpp yàlla defal ko ko dindu itam ci soxna Baali Muntaka ñun xam nañu bu baax digganteem ak Serigne Khadim ba fu ñu tuddee sëriñ bi war nañoo am sañ-sañ ci yëkkati kàdduy yu nuyoo ak cant ak ñaanal ko yàlla yàlla dëgëral taxawaayam ndax digganteem ak sëriñ bi muy sëriñ Xaadim dinaa ci ñëw léegi waaye nuyu kilifa diine yi nga xam ne ñoo fi teew ci sunu jotaay bii mu nekk jotaay boo xam ni daw na yaram lool waaye mu nekk jotaay boo xam ne sagu na lool waaye mu nekk jotaay boo xam ne wax dëgg yàlla rafet na lool te li tax mu neex mooy dañ ko woote ngir lislaam woote ko ngir sëriñ Touba ba noppi jotaay bi nuru boroom ndax ñi fi yëkkati kàddu ñëpp ñi fi jëkkati seen kàddu yëpp maa ngi leen doon déglu attentivement waaye wax dëkk yàlla sëñ Sidi kàddu yi rafet na lool. rawatina nag kàddu yi nga xam ne moo jógee ci sëñ Ahmadou Mbakke bu sëñ Modou Awa Balla Mbakke Cheikh Awa Balla Mbakke di ki nga xam ne moo dara darajaal jotaay bi teewal fi kilifaam muy sëriñ maam Thierno yàlla dogal na ci ngoon bi sëriñ Xaadim di yegsi ci la sëñ maam Cerno di yegsi wax dëgg yàlla moom moo jóg ñëw fekk ci sëñ Xaadim ca dal ba mu nekk saafonte ak moom sëriñ Xaadim gungewaat ko mu dem ci otoom dem mu mel ni diggante boobu xol yépp tooy na ndax xel yépp dafa delluwaat ci sëñ Moodu Muxtaar bi ñu ko gisee rekk xel yëpp dafa dem foofu mu nekk lu tiis ndax jotaayam ba mujj fii ba mu fi gëjee dem barsàq yàlla dogal jotaay bi amaat ren ndax kofik ñu amalaat ko maam Thierno jóg ànd ak njaboot ga ñëw fekk fi njaboot gi saafoonteeg ñoom sagalaat na jotaay bi te it wax dëgg yàlla wuutu na rakkam ci njabootam kon ñu ngi koy ñaanal yàlla yal na yàlla guddal fanam. sëñ Axma ñu ngi lay gërëm ci turu sëriñ Xaadim mii ci lay waxee ndax dañu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam dañu ko laaj kan moo gën ban jotaay moo gën ci jotaay ay julasaa ina xayrun dafa waxoon ni man zakarakumullah ru'yatuhu na doon jotaay boo xamante ne na doon koo xamante ni boo ko gisee mu fàttali la yàlla booy wut koy toogal nee na na doon koo xamante ni boo ko gisee mu fàttali la yàlla mu ne wala wa zaada fi ilmikum mantiquhu na doon koo xamante ne bu waxee sa xam-xam yokk mu ne wa zakarakum bil axirati amaluhu na doon koo xamante ne bu jëfee mu fàttali la àlaxira mu mel ni nag jotaay bi sëñ Axma moo ko moom ndax lépp njaboot gi moom la ko magam dénkoon mu yor ko rafetal ko bés bi am mu ñëw nii toog ba mu dem ma mu toogee ba naga ni jógul yàkkamtiwul ndax xam na ne mbooloo mi fi teew yëpp mbooloom la xam na ne gan ñi fi ñëw ñëpp ganam lañu moo tax sëriñ Xaadim ne kaddu nuyoo gi nañ ko teg ci sa loxo ñaanal la yàlla yàlla guddal sa fan ñaanal la yàlla yàlla dolli sa wér dolli sa sutura dolli sa teraanga nga yàgg a jiite njaboot gi yàgg sa rakk yëpp loolu lay ñaanal sëñ Xalil mii nga xam ne mooy taawu sëriñ bi ak njaboot gi nga xamante ne ñooy rakkam yi topp ci moom mu jëwoo puso bi mu réer puso boo xam ne ay mag dañ cee liggéey ay bàyyi liggéey ci mu daw ba daanu ci sa loxo nga réeral ko def nga musiba dalu la diggante bi fi sa jur génnee ak naga lu ne mënoon na fee xew waaye kër gi kandang dégg amu fi kandang kenn dégg ko fi ngir yàlla ak sa stabilité sa dal sa yar bu mat sëkk sa xam-xam pédagogie bi nga xamante ne moom nga gérer njaboot gi loolu sëriñ Xaadim mu ngi la ci gërëm diina ji yëpp a nga la ci gërëm nag ndax ñi topp sa ginnaaw ay nit lañu danga leen a yilif da fee mag ñu jiital la waaye nag jikko yu rafet moo leen di téye te jikko yu rafet yooyu yàlla def na ko ci yow kon ñu ngi lay ñaanal yàlla fii nga toog yàlla na nga fi yàgg ànd ak say baay di ko ñaanal sëñ Sidi Male kàddoom rafet na fa tabaarakallaahu jotal na sëñ Xaadim nag nee na kóllëre gi mu takkoon digganteem ak seen wayjur mu ngi ñaan yàlla lii day sax faw dara du ci dañ xam naa ne yéen du yàqoo ci yéen te moom it du yàqoo ci moom mu ngi leen di xamal ne daal kóllëre ga la fi mag ñi bàyyi woon incha du ci dellu ginnaaw loolu la waxoon ne naa ko wax ci nuyoo gi gërëm leen sant leen mbooleem koo xamante ne sëriñ bi jaboote na la nee na mu ngi leen di gërëm di leen sant nee na itam mu ngi gërëm soxna Mbakke bii nga xamante ne da ngeen koo yëkkati teg ko ci loxoom mu nekk ak moom neena na bi li ñuy xewee màggal gi xew ak nëgëni soxna Mbàkke noppaluwul nelawul yendalul ba bi mu ñëwee moo ko dalal moom disposition yi mu war a jël ci moom yépp mu jël ko ngir yàlla ak wormaal ko sagal ko nee na loolu mu ngi leen koy seedeel ne mu ngi koy gërëm kon ginnaaw loolu nee na ñu ngi gërëm waa kër maam Thierno Kandji maam Thierno dafa jóg ñëw wàcc kër El Hadj Baro mu laaj ko foo jóge looy wut mu ne ko yàlla laay wër mu nekk ca kër ga def na fa lu bon bon fukki at ak juróom. xëy bés ne ko maa ngi dem mu ne ko foo jëm mu ne ko fu raay bi yem rek fa laay yem booba raay baa ngi yem njaareem mu wàcc fi yëlimaneel moo ko dalal daajal ko néegu ñax mu nekk ca ca suba ga alaaji Amat Baro jël doomam bu jigéen bu ñuy wax astu njegéen maye sëy bi boole koog ñaari magam yu jigéen ne jël leen ko ngeen dugal ko ci saxaar gi dem jox ko Cerno Kanji ñu ñëw jox ko maam Cerno fe dikk waaj laaj yéli ma neel mu yóbbu leen ca kees ga ñu dalal ko fa indi ko jox ko ko ubbi waxande bi yëkkati lettre bi jox ko maam no liir lettre bi mu ne ko su ma faatoo te bàyyi ko bu mu ñëw su ndeyam faatoo te bàyyiwoo ko bu mu ñëw may naa la ko mu ngi noon sa loxo dal ne leen yéen nag bu leen fi saxaar gi bàyyi ci néegu ñax boobu ca la njaboot gi juddoo yéen ma ne la daaj néegu ñax ba nag kon bu ñu demee ba tey ji jumaa ji taxaw fi ñu tudde quartier ba Cerno Kanji armeel yi taxaw fi jàkka ji taxaw fi naasiril xaq bil xaq di jóg ka ñu dénkaane woon liggéey na waaye kañu dénkoo nit gor la kon njabootam bu sëriñ Habib xalifa bi yónnee doom ay doomam muy alaaji ñu ànd ak Baay Ñas ànd ak alaaji Mële alaaji alaaji alaaji alaaji Sekk ñu àndandoo ñoom ñëpp alaaji Kanji ñoom ñëpp ñu àndandoo ñëw ci seen turu wayjur fekk fi Haaj Malick bu Baay Daara ñoom ñëpp ñu àndandoo ñëw ci bés bi bu ñu ñëwee kàddu gii ma doon wax mënoon naa den ko jox sax ñu wax ko waaye sëñ xaadim ma may wax loo de te Cees laa jóge moo tax ma jaar ci ñoom ndax ñooy ñun ñun ñooy ñoom ñu teew fii itam ànd ak suñu baay muy Serigne Cheikh Kandji Ndiéguène ñu tuddewaat ko Alaaji Cheikh Kandji mi nga xamante ne mooy taawu maam Thierno moomu mu ngi nii toog ànd ak Cheikh Talibouya bu Chérif Abdoul Aziz Aydara ànd ak moom Serigne Mbaye bu Cheikh Sadieye mbay ak délégation bi ñu àndal Cheikh Dieye fa tabarakallahu Serigne Khadim nag wax ni ginnaaw bi mu sante yàlla julli ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam mu ngi gërëm bu baax sëriñ max fu nee na ndax Serigne Mahfou keroog bi muy ñëw di ko di ko yëgal si bés bi ñun ñii dañu faa fekk fa fekk Mamour Lo mii fa la fekk njaboot sëñ Xaadim gi yëpp ñu toog ba mu ñëwee mu saafoonteeg moom ak délégation bi mu àndal ku mu bokkal rek ànd na ak yow ñëw keroog oto yi bari na lool ba mu ñëwee xamal ko ne ko bés bi yow ren yow lañ ko cërale ba ko sëñ xaadim di tontu man la wax ne tontul ma xamal ko ni ko Cees yëpp dinañu àndandoo ñëw wuy si la ndax ki nga woo ki nga woo mooy Cees de kii bu wootee Cees yëpp jóg bu wootee lislaam bi yëpp jóg bu wootee këru diine yëpp danañ jóg bu wootee góor ñi nekk biir cees yëpp danañ jóg parce que loolu moom moo ko liggéey ci nit ñi cees la juddoo fa la yaroo fa la màggee mais zéro faute man maay wax doomu soxna la El Hadj Ahmad njegeen moo jur El Hadj Ahmad Ndiégeen sama baay may doomu soxna am na loo xamante ne bu nu ko yëkkatee ci kàddu di ko jëmee ci moom dëgg rek mooy tax ñu wax ko وقل الحق ولو كان مرا ني وقت يالا تخ موي نيت كو غوري نغي ني توك ما واخ كو نيكو تيس ييب دينا نجوك اندك ياو تاي بي ني نييو كونفا بي ني ديف اوتاي خامو ني ني تولو مان داماي خول تي ريتروفيزور بي خاوما اوتاي ني ني تولو نييب جوك ني نييو اندك موم ويسيكو فتبارك الله

ab diir sëriñ Saliou ne tëll génn te jëmm jaak tedd nga ka ñëw nuyoo toog sëñ Cheikh nuyoog moom sëñ Xaadim nuyoog moom man nuyoog moom mu jàmm santeeg ñoom pare jàmm santeeg man ne ma ndax xam nga sëñ Xaadim mi sëñ Saliou Mbacke duma ko fenal mukk ma ne ko dégg naa turam nag waaye tey laa ko mës gis mu ne ma kii sama doomu biir la billahi lazi laa ilaha illa huwa mu ne ma kii ma ne ko ah, mu ne ma sama doomu biir la boole naa leen ma jàpp ci loxoom mu jàpp sama loxo ci kanamu Serigne Saliou Serigne Cheikh Mbacke bu moot Modou Fati xëri yëkkati loxoom teg ci dal ne man de lii ma fekk tey jii

yi xew ci réew mi ci yëngu-yëngoog jafe kii dataay yi sëriñ seeg yu bare bare bari bokku ci bokkul moom mu ngi ci ruqam toog ñii doon jàng xasida yi léegi jigéen ñi noonu la góor ñi mel foofa mu créé ko ay daayira ay daara ñu jàng xasida ubbi daara alxuraan yi xale yi di jàng mu toog ci biir ak surveillance kenn yalwaaniwul kenn yalwaaniwul mu yor ñëpp di leen dimbali diina ji nag mu yore pusoom di ko ñaw boo ko fekkee Tiwaawan ca Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amin danga naan xanaa kii fii la fanaan boo jàllee Njaasaan ca xalifa ba danga naan xanaa kii fii la dëkk boo ñëwee ña ba. danga nga naan kii xanaa fi la dëkk ba Sénégal jeex pelek pusoom la yor di ci ñaw moo tax amul distinction tarixa loolu moo sabab ñun ñu bokk ci fi ñu bokk ci tarixa Cheikh Ahmed Tidiane Chérif radiallahu taala anhu ba noppi ànd ak moom ñëw di def nag témoignage bii ñuy def ci moom nit ku jafe ngi nii nitu valeur mu ngi nii ñii mu àndal ak ñi nekk ci bitim réew mu jàppale leen cadré leen ba ñoom ñëpp kenn ku ci nekk tekki di dimbali say mbokk moo ko liggéey kon nag boo yëkkatee cër bii sëñ Mahfouz jox ko ko ñun Cees yëpp nga honoré lislaam bi yëpp nga honoré tey soreete moom mu waxoon ko yëgal ko at këru diine yi fii tey di nga gis këru diine yëpp parce que liggéey na loolu kon nag diine ci ak Cees yëpp ñooy àndaat gërëm la sant la ci action bi nga xamante ne moom nga def ci jëmmam ci ndax am amma bi ni'mati rabbika fa haddis yeen ñaar nag yéen bokk Serigne Touba yéen a bokk benn maam maam mi kenn rek la mooy Serigne Touba dañuy def distinction tarixa tijaan xaadir murit yooyu yëpp am na waaye nag moom Sénégal war na nañoo ubbiwaat seen bët xool li mu liggéey moom Serigne Touba kenn ku nekk mën ngaa nekk ca la nga nekk gëm la nga gëm jàpp la nga gëm téye la nga téye. waaye nag terewul nag nga xool sëriñ Touba li mu liggéey loolu dañ ko war a xool di ko wax ndax liggéey bi dafa doon loo xamante ne dafa propagé partout dans le monde ñu bari fu ñu waroon a dem Serigne Touba demal na leen fa te bi muy dem dafa dem ci situation yu metti dañoo tas këram ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci Mbàkke Baari tas këram. tas këram yëpp tas daara yóbbu ko ci ndakaaru kii ñaari guddi mu jóge foofu ñu jàllale ko Gabon dem naa ba montagne sent fañ ko dencoon dugg naa ba ca biir mu daj la mu daj foofa waññeeku dellu siwaat ñu yóbbuwaat ko Thiéyène Mauritanie foofu yëpp mu dem lenn rek ko taxoon a jóg mooy ummatu muhammad alayhi salaatu wa salaam drapeau l'islam bi bu mu daan te bi mu koy def ñëpp a ngi fi waaye moom la nekkoon chance am loolu chance su Serigne Touba la woon bi mu wàccee ci bato bi fekk nañ mbokk yi ñu bari dañ daan jàng ay kaamil ne yàlla na fa des mu ne afawtu anil aqdaai turran لوجه من نفاه لغير السرمدا لست أضعف جيجلنا لين نيوم دانيو خامول موم ليكو تاخونا جوك موي اني بي تاي نيون نيب ني اني الاسلام بي ييب ني اني خيوول سيغ توبا ياغي فيب تا لول ليغيم لا امول موريد amul xaadir amul tijaan amul laayeen amul leneen moom dafa ni yaa malikal mulki yaa man jalla an hawadin irham jamiil wara sans distinction de tariqa ñëpp ñëpp yàlla booy jégal na nga jégal ñëpp ci taxawaay boobu la Sëriñ Tuubaa taxaw bind 7 tonnes 500 lii mu ne sànni naa ko ci géej gi lii gas naa ko suul lii def naa ko ci géej gi am na loo xamante ni ku ko gis weddi sax ku ko weddi torox njàngaleem des fi Touba gi ne woon wëyëng tey boo wàccee moo dàq ci ñu samp fi jumaa ji ñu fi samp ginnaawam sëñ Maodo Moustapha mu jóge fi Serigne Fallou toog yokk liggéey ba mu jóge fi Cheikh abdul Ahad tok yok liggéey bi mu jóge fi Cheikh abdul Khadir tok yok liggéey bi mu jóge fi Serigne Saliou tok sët yi commencé ñëw di tok ba ci Cheikh mohammed muntakami yalna na yàlla guddal fanam waaw lolu yep ci ay valeur ci mbax nga am mam lu ko liggéeyal ci sa rew doto xol sa tarixa xolal lim la defal ñun suñu seigne touba suñu honneur la moo tax mu ne fa innahum wa in asawka ya ahad li xaflatin lam yushriku bika ahad mu ne yàlla bu fekkente ne nit ñi dañ laa tooñit seen xol yi kenn nekku ci yow rek yaa ci nekk teyit malaayika yi duf xin yazahru sa mbugal xajul ci ñoom ku la laal tuuti ku laal tuuti ci safaan sa mbugal xajul ci ñoom لكنما تلصص الجوارح لي تونتي نيوم سين تيري لا بت موي خول لو مو وارول خول لوخو لال لو مو وارول لال تانك ديم فو مو وارول ديم تيري يو ياب با تيري داج مو نكون نك لي لين دال موي دانيو ام جانغورو لكنما تلصص الجوارح افضاهم لاقبع القبائل قلنا فلا تواقظ بما لا ينقص ولهم حبل الذي لا ينفع يا الله يا مخالب القلوب قلب قلوبنا عن العيوب defaral leen seen xol yi rek na seen xol yi faju ba wér ñoom ñëpp ñu àndandoo dugg biir aljanna loolu lañ sëñ Tuubaa yéene kon nag ñun bu ñu amee loolu am ci ay jëwrin yoo xamante ne seen taxawaay danu koy sagoo ku mel ni jëmm ji jamono yii ci ginnaaw dañoo ànd seeti Cheikh Mouhamadou Mountakha am na luñ doon lu mu doon wax moom ba yàgg sëriñ bi ne ko ah, yaa ngi may soññ de yaa ngi may soññ de yaa ngi may de maanaam li may wax dollil dollil ndax ma gën a góorgóorlu ku mag ñi bàyyi xel la ñi fi jaar ñëpp kenn ku ci nekk ci jëwrinu Sëriñ Tuubaa yi bàyyi woon nga xel jëmmam ji